أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم wa rahmatullahi wa barakaatu ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam al na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokki jullit yi noo ngi ànd ak yéen ci saar bii di suuratu yuusuf mu nekk fukkeelu saar ak ñaar ñu koy tàmbali tey saar bi wàcc màkk bokk ci saar yi nga xam ne màkk lañu wàcc waaye wuuteeg saar yi wàcc màkk aaya yi téeméeri saa aaya la a fukk ak benn saar bii benn la ci saar yi nga xam ne màkka lañ wàcc nga xam ne dañuy wax dañuy nettali istuwaaru yonent yi aleyhimu salaam saar bi ñu tuddee ko suratu yuusuf alquran dafay aadawoo souvent buy wax ci lenn loolu muy wax la ñuy tuddee saar bi soo demee ca suratul baqara da nga fa fekk ñu tuddee saar bi nag istuwaaru nag baa ngi fa soo ñëwee ala imran ñu tuddee ko ala imran nisa dafay wax ci jigéen ñi maida table la araf histoire baa ngi fa noonu la saar yi la saar bi di wax loolu la ñuy tuddee saar bi saar bi dañ ko tuddee yuusuf lu tax mooy dafa nettali histoire yuusuf yusuf la muy tekki ci ibra mooy daahu yazid loolu mooy yusuf la muy tekki ci ibra mooy bàyyi ko mu continuer wala bàyyil mu yokk am na ñu naan yuusaf am na ñu naan yuusuf ñaari wér na ci kutub al muqaddasa soo ñëwee ci quraanul karim da ngay fekk yusuf am lien taqoo ak ibrahim ishaq yaqub ak kanaan ndax ñoo ñoo ko jur ñu nekk ay palestinien yusuf mu nga juddoo réew mun naan kanaan mi ngi gaañu 1444 wala 1445 la génn àdduna yusuf alayhi salaam yusuf yaquba moo ko jur yaqub isxaqa moo ko jur isxaq ibrahima mooy baayam ibrahima taara mooy azar ibnu naxuur ibnu saaruux ibnu raaxu ibnu faalix ibnu abir ibnu saalax ibnu arfaxsas ibnu saam ibnu nuux gis nga càllale gi delluwaat na ci yonent yàlla nuux liñ doon wax keroog na ñun ay doomu nuux lañ aadama nuux mooy deuxième aadama ci kaw suuf monde bi nuy dund ay doomi nuux lañ waaye duñu ay doomi aadama wala ñu tuddee aadama ñu tuddee nuux deuxième Adama Adama mooy premier mbokk jullit yi saar bii di suuratu Yuusuf dafay nettali istuwaaru al anbiya yonent yi waaye dafa jël particularité benn boo xam ne benn yonent daal la jël rek lu bëriwul lu alxuraan di def jël benn yonent rek mu topp histoire am ba mu jeex tak tak tak tak tak fa mu tàmbalee ba mu jeex ci saar bi dong la muy suuratu Yuusuf yeneen yonent yëpp yàlla day dagg nettali fii yeggali ko fële tàmbali ko fii yeggali ko fële amma Yusuf moom doomu la saar bi jël nettali histoire am yëpp ba mu jeex tàkk muy doomu Yaaqub yàlla daf ñuy nettali wa ma laaqaahu alayhi salaam min anwaa'il balaa la mu tase ci ay métit ak ay coono moom Yusuf yonent yëpp sonn nañ nag waaye Yusuf bokk na ci yonent yooyu nga xam ne yenu nañ ay métit ay coono depuis mu nekk xale ba ba muy génn àdduna même ci juddoom sax dafa amoon problème pour yaayam mattu ko rek problème la woon yaay Yusuf mu ngi tudd Rahil ñaari doom dong la jot a am bi mu leen di am ci matu dafa metti kenn ki moom ba mu ci matu bu sax la génne àdduna muy Benyamin mu ne yàlla daf ñuy nettali ci saar bi almihan wa shadaid min ixwatihi wa min al axirin Yusuf dafa dund ay métit ay coono yàlla diñ ko nettali yu taratar ci ay mbokkam ci biir kër gi famille bi mu juddoo dafa am problème waaye ñeneen dafa am problème ak ñoom am na problème fii baytil aziz misra këru premier ministre Égypte Yusuf am na problème ci biir kaso Yusuf am na problème ak ay jigéen ba yàlla tabaraka wa taala daal di koy sauver ci xat-xat yooyu yëpp problème bi Yusuf njëkk a am mooy ci biir këram seen biir kër ay frère am yoo xam ne fukk lañ waaye bokkul ak ñoom yaay ñooñu gis ne seen papa moom la gën a bëgg ak ñoom tout le temps ñu jóg di ko fexeel xam nga nag loolu léeg-léeg sax am na nit ñu naan dëgg-dëgg loolu xale yi def déedéet jaaduwut c'est parce que loolu dafay bëri ci kër kër xale yi du ñu tolloo xale bi am 15 ans ak xale bi am 4 ans est-ce que ñoom ñooy tolloo ci kër gi est-ce que ñoom ñooy yem seen papa non non ki am 15 ans mun nga ko fekk saal bi mu toog mais doo ko fekk ci biir néegu paa bi wala mu nekk ci kaw lalu paa bi tëdd wala mu toog ci fauteuil paa bi ci biir néegam non non mais xale bu ndaw bi tout le temps moom yoonam nekku ci moom day dem alquran la ah musaf musaf aza musaf tout le temps dafay dafay xale bu ndaw boobu mën na moom day paa bi daf koy recevoir tout le temps su paa bi wàccee day ànd ak moom ci biir néeg su paa bi di simmee ko moom day tëdd ci kaw lal bi mais loolu ko am vingt ans mënu ko sa papa fooy yem ak moom ci buntu kër gi wala biir néeg bi su duggee nga bàyyi ko mais kële ba pare kee su toogee day daw di tëb ci kawam di cëppi cëppi est-ce que ki am vingt ans dina cëppi cëppi ci kaw papam léegi nag ñoom loolu ñu seetlu Yuusuf di ko def ci papa ñu ne kii daal ñu def ñoo bañ day amagum jëm yu am ay jabar ak ay doom ñu commencé di indi ay ay ja ay ay ay mbir beneen bi mooy aussi ku yàlla nar a préparé war a def ci yow dara da ngay wuteeg nit ña bu dee xam-xam da ngay wuteeg nit ñi bu dee nguur da ngay wuteeg nit ñi bu dee doole da ngay wuteeg nit ñi loo yàlla nar a def ci nit depuis mu nekk xale kooku dafay wut ak yeneen xale yi du nekk n'importe qui loolu yëpp dafa am ci diggante Yuusuf ak frère am yi frère am yi ñoom dañoo gisoon ne ku ëpp doole suñu bëree kuy daan nit ñi yow yaay nekk yonent yaay donn seen baay ñu jàpp ne am na xeer yu ngand yu nekk ci dëkk bi yoo xam ne kenn attanu ko ku ko yëkkati yow yaay nekk yonent Yusuf moom dafa wuteek ñoom foofu mbir yooyu tax na mu am problème ak famille bi waaye mu am problème ak ñeneen ñeneen ñi ñooy ñan xoolal ki ko génn ci biir teen bi dem jaay ko yóbbu ko ci marché bi ñuy jaay jaam yi teg ko ci pojomu bi ñuy jett jaam yi daal di koy jaay ko tudd Malik moo ko jaay waaye Yusuf am na problème kër premier ministre bi bi mu ñëwee ni ko premier ministre bi bëggee ak soxnaam ak ñi fa nekk di fa liggéey bu commencé di ko bundu xataal parce que jël na occupé na place bu rëy rëy rëy ci biir kër gi xa am ñoo xam ne jàpp nañ ne loolu da leen di xatal parce que ñoom ñoo fi nekkoon démb seeni place lay jël waaye Youssouf am na problème ak jigéen ñi surtout nag jabaru premier ministre hmm? ba loolu daal di sabab ñu daal di tëj Youssouf kaso ci kaso ba mu am fa problème ñu dóor ko fa dóor yu métti ba yàlla tabaraka wa taala dogal mu daal di génn ci kaso bi xatta najjaahu llahu min zalika diiq ba xat-xat yooyu mu nekkoon yëpp mu jaar mu traversé ko sunu borom subhanahu wa taala musal ko ci léegi nag lan mooy histoire lan mooy sabab sunu borom subhanahu wa taala di nettali yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam histoire yuusuf lan mooy sabab bi benn kese la mooy lan mu nekk tasliya lir rasul sallallahu alayhi wa sallam bima marra alayhi min alkarbi washiddati wa ma laqaahu min ada alqarib walbaid ni yusuf amee jafe-jafe ci fameem am jame jafe-jafe ci dëkk bi ak ak ñeneen am jafe-jafe ak kilifa yi noonu la sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam amee ay jafe-jafe loolu tax yàlla tabaraka wa taala pour mu dalal xelam pour mu xam ne du moom dong moom la métti masa dal yàlla di ko nettali histoire yusuf pour mu mun a am tranquillité ndax moom yonent bi problème ma ngay juddoo ma ngay tàmbalee balaa muy judd ñaari weer la ko yaayam ëmb baayam génn àdduna ndax métit passé na loolu ku mus sa gis sa papa ci àdduna foofu la métit tàmbale xamoo sa papa dafa njool xamoo dafa gàtt xamoo dafa xees xamoo dafa ñuul xamoo dafa xeereer xamoo nu mu mel parce que lu tax parce que mosoo koo gis mu juddoo yaayam nàmpalu ko ñu ngi ko nàmpali ca giiru saadiya ca xalimatu saadiya lañ ko nàmpal ca àll ba ca baadiya ba lañ yóbbu sayduna muhammad alayhi salaatu wasalaam daal di ko fay nàmpal ñooñu ñoo ko yar bi yaayam gaañoo ñu indil ko abdul mutalib mu daal di gaañu aba taalib daal di koy jël daal di gaañu xoolal métti yi maanaam day toxu kër par kër day toxu kër par kër amoo baay amoo yaay amoo maam amoo dara métit yooyu coono yooyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am sunu borom subhaanahu wa taala di ko nettali suuratu yuusuf pour mu xam ne métit yooyu du moom kenn moom la tàmbalee te du yem ci moom loolu mooy almaqsuud jubluwaayu sunu borom subhanahu wa taala wàcceel yonent yàlla muhammad suratu yusuf wa sura alkarima uslubun fazun farid fi alfaziha saar bi benn saar la boo xam ne moom dong kot langage bi mu wàccee moom dong moo ko am terme yi baat yi moom dong moo am saar bi moom dong moo ko am ni ko yàlla waxee nettali ci xissa bi muy xissa yu neex yu lewet yu triste yoo xam yoo xam ne buñ la koy nettali du yem ci say nopp waaye day dugg ci sa xol nga koy sentir ci sa yaram histoire Yusuf mooy saar boo xam ne xissa yoo xam ne buñ la koy nettali buñ ko tàmbalee doo ko bëgg a dagg suñ la ko tàmbalee di wax doo bëgg ki koy wax arrêté. ndax sunu borom subhanahu wa taala uslub bi mu ko defee terme yi mu ko waxee jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu nee na histoire bi day daw ci yaramu nit comme deretam ni muy dawee day daw ci dugg ci ay siditam waaye di ko jural moom doomu aadama boobu nga xam ne day déglu xissa yuusuf mbégte ak kontante ci xolam waaye di ko dindil bu fekkoon ne dafa dafa am naqar wala dafa nekk koo xam ne dafa bégul suñ la nettalee histoire Yuusuf naqar googu ak métit boobu day dañ ci yow mbokk yi ci yàlla saar bi wax naa leen sànq saar bi wàcc ci Makka la waaye nuroowul ak saar yi nekk mag yi wàcc mag mais moom Makka la wàcc waaye nuroowul ak ñoom lan mooy différence bi mooy saar yi wàcc màkk dañoo ñëw di xuppaati dañoo ñëw di jàngale tawxiid ku kennalul yàlla bu dee safara la jëm saar bi moom dafa wàcc màkk waaye beneen façon la indi dafa ñëw di nettali histoire ab yonent kenn ci ndawal yàlla yi ci jaami yàlla yi ku yàlla tànn yónni ko kon nuroowul ak saar yi wàcc màkk donte ne fa la wàcc ndax saar yi wàcc màkk li ci ëpp inzaar la ak tahdid xuppaate la ak terrorise ak tiitalaate ku deful nangam boo dajeeg borom bi waaye bii suñu borom subhanahu wa taala dafa jagleel saar bi beneen façon méthode bu mu jàngalee xissa yi mbokk yi ci yàlla saar bi di saaru Yuusuf dafa nekk saar boo xam ne moom ak saar bu tudd suuratu Maryam kenn ci boroom xam-xam yi ku tudd Xaalid ibnu Macdaan nee na suuratu Yusuf wa Maryam mimma yatafakkahu bihima ahlul janna fil janna allahu akbar saar yi dañoo neex ba waa aljanna buñ duggee aljanna dañuy bëgg ñu leen di nettali histoire Mariama ak histoire Yusuf ndax histoire Yusuf ni mu neexee ak histoire Sayyidatuna Mariam ndax saari li ci nekk waaye kenn ku tudd Ata ci borom xam-xam yi nee na laa yasmau suuratu Yuusuf mahzun ila staraha ilayha ku am naqaru xol ku feebar ku am métit suñ la yëkkatee nga toog ñu lay nettali histoire Yuusuf da ngay fàtte li la métti li la doon métti bu dee naqar la da ngay fàtte naqar bi nee na saar baa ngi wàcc ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam baada suuratu Huud ginnaaw saar bi ñu génn Yuusuf moo ci tegu saar bi du suuratu Huud dafa wàcc Yuusuf dafa wàcc ginnaaw suuratu Huud ci jamono boo xam ne jamono bu metti la ci dund yonent bi alayhi salaatu wasalaam gis nga yàlla yàlla tabaraka wa taala ni mu doxaleeg yonent alayhi salaatu wasalaam yonent saa yu amee métit yàlla day indi lenn nettali ko ko pour métit bi dañ saar bi ginnaaw suuratu Huud jàng ngeen histoire Huud yàlla di nettali yonent bi jaar jaari jaar jaari yonent yi alayhi salaatu wasalaam la tàmbalee ca Nuux ba yonent bi mujje bi ñu mujjee jàng ci suuratu Huud muy ban yonent Moussa alayhi salaam yàlla di ko nettali yonent yooyu métti yi leen dal yonent bi dafa dund loolu bi su bi Huud jeexee fekk yonent baa ngi ci méttit bu garaaw lu tax méttit bi doy waar mooy dafa amoon ku ko doon protéger daan ko aar ci biir Màkka ku tudd Abu Taalib kooku génn àdduna amoon soxna su ko daan dalal su tudd Khadija kooku génn àdduna at moomu métti ci yonent bi alayhi salaatu salaam ba mu tuddee at bi amul xusn atum njàqare yonent bi dem taayif ñu dóor ko ay xeer ba tànk yi di nàcc yonent bi ñibbisiwaan màkka ñu embargo ko génne leen yóbbu leen ci shaab abi taalib amatuñu lu ñu lekk ba benn tàndarma fanweeri nit ñoo koy màcc ñuy dagg xobu garab yi di lekk ci méttit boobu ci jamono boobu ci la yàlla wàccee ci yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam suuratu yusuf boobu waa quraysh ñoo ngi nekk nit ñu doy waar mbooleem loo xalaat ci mbon mbon sotti nañ ko ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci ay métit ak way gëm yàlla yi ba embargo leen sax yóbbu leen ci xuru abu taalib bind ay rëdd ci kër jullit ñi ku mel ñu mel nii kenn du leen jaay kenn du takk ci ñoom kenn du wax ak ñoom ku ñu gis ngay wax ak kenn ci ñu gëm yàlla yi nangam ak nangam lañ lay def ndeysaan jamono bu metti boobu yonent bi dund ba tuddee at mi atum njàqare ci la sunu borom subhaanahu wa taala wàcceel ko aaya bi pour dalal xelam yëgal ko ne Yuusuf yëgal ko ne yonent yàlla yusuf moom tamit fii la jaaroon ixwatal iman mu ne wa fii tilkal fatra al asib ci jamono bu tar bu metti boobu min xayaati rasulil karim sallallahu alayhi wa sallam fi zalika al waqt كان يعاني فيه الرسول والمؤمنين الوحشة والغربة والانقطاع في الجاهلية قريش sunu borom subhanahu wa taala yëg gi mu yëg ne yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam mook way gëm yàlla yi ñi nga xam ne ñu ngi commencé wuyu si wooteem dugg ci lislaam ñoom Ammar ñoom Musab ñoom Yaasir ñoom Sumayya Bilal Abubakar coono yooyu métti yooyu saxaaba yi daj moo tax ñun bu ñu bëggee dund diine yi ne dund sonn dañuy nax suñu bopp waaw suñ bëggee dund diine ñu ne dañu daj lu saxaaba yi dajoon du ñu daj li yonent yàlla muhammad dajoon du ñu daj li yonent yi dajoon yonent yi lan lañ dajoon ndax yonent yi dañoo ñëwoon ne nit ñi génn leen seen kër yi ñun ñu dëkk ci loolu la moo doon mission yonent yi ndax dañoo laajoon nit ñi seeni jabar ndax dañoo laajoon nit ñi seeni alal déedéet yonent yi benn kàddu dong lañu indi nit ñi ne leen du fii ibadullah ma lakum min ilahin xayr jaamu leen yàlla bàyyi leen bokkaale xuulu laa ilaha illa allah tuflihu nit ñi lànk xoolal loolu dong la yonent bi indi am problème loolu kese la amul leneen a laaju nit ñi alal laaju nit ñi seen i dëkkuwaay laaju nit ñi seen i kër laaju nit ñi seen i jabar laaju nit ñi seen i doom bañ nañ ko sa ba alxuraan da doon wax ne ñun de laa nasalukum ajran lii ñu leen di woo laaju ñu leen ci fay loolu la yonent yi daan wax loolu la ñu yàlla nettali terewul ñoom ñu am ay problème ba ki ci mujj di yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam ëpp leen problème foop ndax moom ak way gëm yàlla yi ñoom bilaal bilaal rek li mu daj bilaal kese li mu daj ci lislaam kenn xamu ko yéen ñëpp jàng ngeen ko wala ngeen liir ngeen ko wala seetaan ngeen ko ci film yi gars yi di joué bilaal a ngoog musab loolu la daj bal sax moom dañ koo rey bisu uhud musab nekkoon ndaw loo xam ne moo doon premier ambassadeur yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu yónni mu jógee Màkka dem Medine jàngale ji diine kenn la woon ci yaayam Musab moo gënoon rafet ci xale xale yi màkk Musab moo fa gënoon taaru Musab moo fa dàqoon solu Musab bu sangu woon ba pare ba solu ba kaalaw su sottee ko parfum di génn nit ñi dañuy génn di ko koj ndax bëgg a gis ni mu soloo tey ndax noonu lañ ko gatee woon parfum bi muy sotteeku bu génnee ci buntu kër gi ñi la waa koñ bële da leen di xeeñ nit ñi dañu naan xanaa Mustaf moo génnaat tey waaye bi mu duggee ci lislaam xool leen teraanga boobu mu amoon xam ngeen fan la Mustaf mujj di woddoo ay saaku soble ay saaku pombiteer yu jeex yooyu lay jël ñaw ko def ko yére di sol woddoo benn bi def benn bi mbubb li leen di wan ne Mustaf dafa dund métit uhud bi mu faatoo yére bi mu soloon dañ ko dugalee ci pax bi xam nga ne ku faatu ci xare kenn du la kenn du la waaw moom mooy premier kenn du la sang kenn du la jullee moom mooy ñaareel kenn du la ah kenn du la sang kenn du la kenn du la sang mooy solo la perkaal kenn du ko def ni ñu ko dugalee ci pax bi yonent bi ne xëcc leen mbub mi mu muur bopp bi ndeysaan bu ñu xëccee mbub mi tànk yi génn ñu xëcc yére bi ci tànk yi bopp bi génn allahu akbar ñu ne yonent ah bu ñu xëccee yére bi yóbbu ko ci bopp bi tànk yi day génn yonent bi ne xëcc leen ko ci bopp bi tànk yi ngeen mottale ko ñax ngeen suul ko la ilaha illallah ci xoolal fu mu nekkoon démb ak musaf fu mu nekk tey te pourtant waa Medina yëpp genn wàll gi ci loxoom lañ tuubee ndax waa Medina bi ñu tuubee rek yéen doon jël musaf àndal ak waa Medina nga jàngal leen diine mu dem tuubloo kër yëpp moo tax ñu ne moom mooy awwalu safir fil islam comme niñ nekkee Bilal muazzinu rasul ah Hamza asadullah Khalid Sayfullah Umar Al Faruq Ousmane Zunnurayni Aboubacar As-Siddiq noonu la mus am nekkee as-safir awwalu safir fil islam ñoom loolu mooy seen alqaabu saxaaba dañoo am ay ay dàkkantal dañoo am ay alqaab am Abdullah ibnu Abbas lan mooy laqabam hibrul umma wa turjumaanul quran ñoom ñëpp noonu la ñu amee ay ay dàkkantal mbokk yi ci jamono boobu ñu ne yonent bi am na tartar moog way gëm yàlla yi ci dund njaay àll ak tumaranke ak ñu embargo leen waa Quraysh nee na suñu borom subhanahu wa taala yanzilu ala nabiyihi alkarim hazihi sura tasliyatun lahu ci la suñu borom subhanahu wa taala wàcce saar bi di suuratu yusuf ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam pour lan pour dalal xelam pour bégloo ko pour dindil ko coono yi fàttali ko wa taxfifan li alaamihi pour dindi mettit yi ndax dafa dund mettit yonent yi dund mettit yëpp yonent yàlla muhammad bokk na ci ndax moom mettitam mu nga tàmbalee balaa muy juddu ba keroog muy dund àdduna muy génn àdduna ci ay mettit la dund walla rek ni mu wëree juddoo màkk màgge fa yaroo fa waaye faatoowu fa de dund fa de anama Médine dañ ko génne exilé ko mu dem Médine allahu akbar xoolal coono boobu métit boobu nekk Médine kan nga fa nekk sa mbokk ana say mbokk ñu nga màkk bàyyi nga leen màkk say mbokki pap say mbokki yaay anañu yow kenn cundum ak way gëm yàlla yi ñooñ ñooy léegi say mbokk moo tax yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam yàlla jox ko saar bi pour lan pour métital pour oyofal métit yi nga xam ne moom la daj bi zikri qisasil mursalin yàlla nettali ko ci yonent yi ci biir ci biir saar bi yàlla nettali ko yonent yi nuux fi mu jaar yeneen yonent yi ah ba ci yusuf alayhi salaatu wasalaam li mu daj depuis moom tamit juddoom ba keroog muy màgg ba keroog muy jël nguuru Égypte yàlla nettali ko ko mu ne wa ka anna allaha taala yaqulu li nabiyihi sallallahu alayhi wa sallam laa tahzan ya muhammad mi ngi mel ne saar bi yàlla da koo jox di ko ci wax saar bi ci biir saar bi yow muhammad bul am bul am naqar bul am metit bul yëg coono déglul lii jàngal lii soo ko dégloo soo ko jàngee sa métit ak sa coono dina dañ wala tatafajja li takzibi qawmik bul am naqar ci say mbokk liñ la feet di fen loola li gën a métti ci woote woote yoonu yàlla li gën a métti ci woote ci yoonu yàlla mooy say mbokk weddi la te nag yonent yëpp nag ndeysaan seeni mbokk dañ leen a weddi li gën a metti laa wax même sax waxuma yonent yi même nit ordinaire yi borom xam-xam yi seen dëkk yi ñu dëkk su leen waa dëkk bi weddee jeex na coono ñëw na ñi la waroon nangu ñi la waroon déglu ñi la waroon aar ñi la waroon puus ñi la waroon jàppale nga tàmbali ñooñu ñu ne la du fii loola tax même sëriñ yi fa ñu fa ñu tekkee du seen dëkk yi ñu juddoo wax leen ma ji benn sëriñ bu juddoo ci dëkk tekki fa ñoom ñëpp dañoo génn seeni dëkk Cheikh Ahmad Bamba ndax olof la woon fan la lan la woon ah waaw fan la wootee El Hadj Malick ñoom ñëpp gis nga bu ñu tàmbalee wax seeni mbokk dañ naan la yow kañ nga fi judd yow kañ nga fi jàng kañ nga fi màgg commencé di la indil jafe-jafe àdduna noonu ngay exilé jël say bagage anawaa départ uti feneen soo demee feneen nag ñooñu accueillir la dalal la yëf yi daal di màgg ñële nag torox daw ñëw laa ilaha illallah min mbadi bone so min ngandino fekk c'est trop tard le médecin après la mort xataa yonent yi alayhi salaam wax naa leen sànq Yusuf fa mu juddoo kanaan ah lan la ko waa kanaan def jàpp ko sànni ko ci teen toroxal ko dóor ko ba muy bëgg dee génne ko jaay ko fuñ mujj Égypte la tekkee yeneen yëpp noonu la Moussa fan la juddoo génn dañ koy exilé génne ko di ko bëgg a rey mu daw dem Madian sooyi bu jël ko accueillir ko làqu foofu ba màgg muy ñibbi yàlla jëf ko yonent mu doog a dellu gis nga hatta yonent yi yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam a ngi nii juddoo màkk yaroo mag màgge mag waaye fan la ko taraanga gi dabe fan la ko yàlla defalee xéewal madinatul munawwar ndeysaan moo tax moom yonent alayhi salaatu salaam bis ñëw muy séddale ay taraanga muy séddale ay taraanga yi ñu gañe woon ci xeex bi muy jox ku ñëw rek mu jox ku ñëw mu jox ku ñëw mu jox joxul waa Médine waa Médine ne waaw lii mooy lan kii bi mu amee problème ñun ñoo ko accueillir ñun ñoo ko dalal biñ ko génnee ñun ñoo ko fat bi nit ñi ne déedéet ñun ñoo ne waaw bi nit ñi di ko xeex ñoo ko jàppale tey muy joxe mu jox ñëpp bañuñ bàyyi ñu loolu moom il faut ñu wax ko il faut ñu seetaan ko wax ji daal dem ba yonent bi dégg ko ndeysaan mu daal di woote ñëpp ñëw bi mu wootee ba ñëpp ñëw mu ne yéen waa Médine ñu ne waaw mu ne ndax li ma jox nit ñi da leen a metti nit ñi ay xar laa leen jox ñi ay béy laa leen jox ñii yére laa leen jox ñii suukar laa leen jox ñii maa ngi leen jox yàpp yéen waa Médine ngeen am Muhammad Muhammad doyu leen yéen waa Médine ñii yóbbu ay yàpp ak yére yéen ngeen yóbbu Muhammad wala ndeysaan waa Médine daal di yuux daan ne ko wallaahi doy ngañ wallaahi doy ngañu gis nga seen xel ñoom dañoo jàppoon ne waaye dafa jàpp ne ñoom li ñu am moo ëpp li ñu am mu ne damaa jox nit ñi lépp yéen ma des ak yéen yéen man ngeen am dund gi yéen a ko moom dee yéen a ko moom yàlla dafa aar Médine ba dajjaal du fa dugg dajjaal dina dugg dëkk yëpp ba mu des Màkka ak Médine ndax malaaka yi ñoo koy garde bis bu dajjaal ñëwee ndax aar Médinatul Munawwar ah Médinatul Munawwar donc mu am benn place ci aljanna place boo xam ne boo fa toogee yaa ngi aljanna loolu fan la nekk ci jàkka yonent bi alayhi salaatu wasalaam maa bayna minbari wa rawdati rawdatun min riyaadil janna allahu akbar foofu ku fa toog rek doo bëgg a jóg ndax yaa ngi ci biir aljanna toog foofu moom dong moo ko am amul màkka de ah allahu akbar moo tax yonent alayhi salaatu wasalaam mbokk yi même même nii nii ku dem ku dem aji màkka nga dem màkka wala nga dem Médine ñi aj xam nañ ko même naari màkka ak naari Médine nuroowuñ setu màkka ak setu Médine du benn Médine ngay dund ba jógee fa doo fa gis weñ weñ yéen ñii di naaw nii di leen sonal nii amul Médine de kenn du ko gis biir Médinatul Munawwar Médinatul Munawwar kenn du ko gis kayit buy naaw kayit yi di naaw nii ci mbedd yi kenn du ko fa gis Médinatul Munawwar amul mbalit amul yoo loolu foofu dong la am mooy dëkk bi gën a leer ci àdduna bi ah moo gën a leer ci àddina bi allahu akbar fu sori ngay toll di seen sooroori yonent bi alayhi salaatu wasalaam sallallahu alayhi wa sallam kooku du sunu morom de gars yi di ko concurrence fii laa ilaha illallah kooku du sunu morom kooku dem dem na bu yàgg kooku yegg na bu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg gars yi nekk fii di te li doy waar mooy ñi ñuy boole fii ak yonente yàlla muhammad alayhi salaatu salaam ñoom ñëpp ci barke yonent bi lañ amee ah ñi seen taalibe yi di boole ak yonent bi fii laa ñoom ñëpp ci yonent bi la leen yonent bi séddee ci yonent bi lañ séddu maanaam ci yonent bi li mu am ñoom lañ dem coppatu ci tuuti ñëw toog fii ñu leen di yëkkati di leen bëgg a rombal yonent bi ndax loolu jaadu na ah ndax loolu nekk na yow maa tax nga am say mbokk bëgg maa concurrence ci yow te yow maa tax nga séddu loolu est-ce que xel nangu na ko yonent du borom gaa yi moom daa dem ba ci yàlla Moussa daa bëggoon gis yàlla mënu koo gis wala ah Muhammad nag daa gis yàlla ndeysaan Moussa moom da kaa bëggoon gis naam haza qawlu abbas alaysa kazalik haza ma qala abbas naam yonent yàlla Muhammad bu mu jógee leetu isra wal mi'raj abbas da ko ne gis nga yàlla mu ne ko waaw yaay Aysa moo ko laaj mu ne ko déedéet lan la borom xam-xam yi wax ñu ne Aysa xale la woon su ko ne woon waa da koy laaj nu mu mel nangam nangam mais abbas da ko ne waaw foofu la borom xam-xam yi wuute noonu la ñu wute ba pare xel nanguwul xel al aql as saxiix as salim nanguwul yonent yàlla Muhammad déparé makkatal mukarram ci voyage boo xam ne yàlla daf ko préparé malaaka yi jibril mikaayil asrafil ba pare yàlla préparé ko fas bu tudd alburaq fas bi dafa gaaw ba fu mu xool foofu lay teg tànkam mu jógee makka julli ñaar raak dem Madina julli ñaar raak dem masjid aqsa julli ñaar raak jóge masjid aqsa dem kaw asamaan yonent yàlla Muhammad bu demee ba kaw asamaan ñëwaat gisul yàlla amul sens amul sens ah eh mu mu dem ba yàlla di ñu nettali ci ci kaw ci kaw asamaan asamaan yi mu romb ba dem ba foo xam ne jibril mënatul dem jibril mu ko doon yóbbu mënatul dem da ko ne ah man de fii laay taxaw wa ma minna illa lahu maqaamun maalum fii laay yem fii mënatuma bouger mu ne léegi lan laay def pour ma dem ci sama borom mu ne ko demal ci essence bi la mu yóbbu la ci yàlla mu ne cas dem toog ci ba mu ne jàkk jàkkaarloog leer gi mu ne ko attahiyaatu lillah attayibaatu assalawaatu lillah riwaaya attahiyaatu lillah azzakiyaatu lillah attayibaatu salawaatu lillah yeneen bi ne ko moom yàlla mu ne ko assalaamu alayka ayyuha nabiyu wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñi fekke woon audience daan ne assalaamu alayna wa ala ibadillahi salihin yàlla jox ko julli dugal ci taaya bi ne ko nañ ko wax yàlla jox ko lam ko jox ci suratu nañ mi yàlla di nettali voyage bi fan la aaya bi tàmbalee ci suratu nañ mi bi yonent yàlla Muhammad di tukki ànd ak Jibril ba dem ba ci yàlla fu aaya yi tàmbalee dégguma inda sidratul muntaha indaha jannatul mawa is yaxsa sidrata ma yaxsa yàlla mu ne ma kazabal fuaadu mara ma kazabal fuaadu mara xolam bi weddiwul la mu gis ah lan la gis ma kazabal fuaadu mara dem ba loolu gaay naan doo woni jaabi haadir de sidratul muntaha yàlla mu ne indaha foofu garab googu nekk indaha jannatul mawa foofu mooy aljanna mawa allahu akbar yoon yàlla Muhammad du morom de mu dem ba gis xalima yi yàlla di bindee kun fa yakun lépp nekk yàlla jël ko audience wax ak moom li mu wax ak moom mu daal di ñibbisi wàcc terewul day yéeg mbaam terewul day naan ndox mu ñuul terewul day lekk seel terewul day fóot ay yéreem terewul day raxas ah terewul day toog ak nit ñi di wax ak nit ñi sallallahu alayhi wa sallam buggul sax ku ko wax sayyiduna te moo dem ba foofu fii ku fi demoon fee ñëwaat rek lu ñooy ah fee laa fee dem fee rek ñëwaat fii na la gaa yi di téye ah doon naa aji màkk ma dem tàggu benn kilifa bu mag mu may ma mbaxne ma dem ñëwaat bisu bi ma ñëwaatee ma sol mbaxne bi benn waaye ma koy tooñ ma ne ko mbaxne bi sëy diw rek mu baaji ne day dagg sama bopp bi ne day jël mbaxne bi xoolal mbaxne kese la waaw mbokk yi yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam fu mu dem kenn mënu faa dem fu mu yegg kenn mënu faa yegg loolu moom dong moo ko am yonent yi alayhi salaam sax amuñu loolu waaw waaw ku weddi laajal Muusa amul loolu ndeysaan is yaxsa sidrata ma yaxsa ma zaaqa albasaru wa ma wa laqad raahu nazalatan uxra ah fan la ah allahu akbar ay waay loolu rek doy na loolu rek doy na ci yonent yàlla muhammad loolu kese kese kese kese kese doy na doy na kese amul leneen kon looloo tax jafe-jafe ak métti yooyu moo tax yàlla subhanahu wa taala wàcce ci moom suuratu yusuf alayhi salaam mbokk yu li di mu ne ci jamono boobu nga xam ne waa Màkka ñoo ngi koy xatal moom yonent bi génne ko ci jamono boobu la yàlla tabaraka wa taala wàcce ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam saar bi di suuratu yusuf ngir lan yàlla di ko nettali ndax la xewoon di ko ne yëgal ne inna ma al usri yusran jafe-jafe boo gis yomb-yomb moo ci topp yusuf amoon na jafe-jafe ñu dugal ko ci teen génne ko ci teen jaay ko jaam génne ko ci jaam yóbbu ko kaso waaye ba mu génnee ci kaso fan la dem pale loolu mooy inna ma al usri yusran waaye xam ngeen mission mission nit ku baax mission yonent mission nitu diine mooy fu ñu la yóbbu lu mu métti métti métti métti yow da ngaa war a liggéeyal foofu yàlla maanaam foo nekk lu métti métti métti yow missionnaire nga war a nekk Yusuf bi ñu ko dugalee kaso Yusuf lan la changé kaso bi faysa bi Yusuf yu xawilu sijin madrasata tawxid aaya yaa ngi ñëw ci kanam di ngeen ko gis yaquba ci sukuraat la nekk mu woo doom yi maa taabuduna min baadi lu mu métti métti métti métti mooy diine bi mooy nekk ci kanam ibrahima loolu la dénkaane wa wasa biha baniya baniya laa wa wasa biha ibrahim wa yaqub ya baniya inna allah astafa lakum din fala tamutunna illa wa antum muslimun loolu la yaquba dénkaane loolu la yusuf exécuté kon mboolem yonent yi métit bu ñu am xoola yonent yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam bu mu nekkee ci métit ci coono fatima ñëw ci moom naan waa kar baaba way bàyyi sonn nga woy papa sonn nga mu naan ko laa karba bi abik baadal yowm riwaaya yu njëkk makka yonent yàlla muhammad bi mu tàmbalee woote ñu koy fitnaal di ko sonal fatima naan ko papa sonn nga mu naan ko fatima laa raaxa papa doon noppalu mu naan ko laa raaxa noflaay amul noflaay amul lu dul diine ji daal tasaaroo mbokk yi kon yàlla dafa wàcce saar bi ci jamono tartar ci jamono metit pour xamal yonent yàlla muhammad jafe-jafe boo gis yomb yomb moo ciy topp waaw xoola yusuf li mu daj ci jigéen ju rafet jigéen ju am alal jigéen ju mel nu mu war a mel jigéen joo xam ne ci pale la yeewoo paye pale jigéen joo xam ne buur mooy jëkkëram mu sànni jëkkëram bëgg a topp booyam bi mu bi ko doon liggéeyal ndax yusuf bi ñu ko fa jaayee booy la woon mu bëgg a topp Yuusuf ak taar bi mu taaru ndaw si topp ba sonn yëf yi na këcc këccaaral mënul jot Yuusuf mu daal di lal plan waaye xoolal yàlla génne ko ci jafe-jafe boobu ñun fii mënuñoo rëcc ay jigéen xaw ma sax ay jabaru buur ak ay nangam nangam ak xale yu jigéen yi ci mbedd yi di jaay fataaya mënuñu leen a rëcc waaw te xoolal Yuusuf kër buur jabaru buur waaw waaye mu ne moom du wor buur bi ndax inna allaha la yahdi kaydal xaa'iniin moom du wor mukk waa ji du ko jël jënd ko indi ko ci kër gi defal ko teraanga bu rëy bi muy séq ak jabaram mukk mu doon yow fii looy wax jabaru patron laa def nangam jabaru sàmba laa def nangam jabaru diw laay def nangam yenn saa yi sax nga dégg ku ñu jàpp ak jabaru baayam est-ce que xam ngeen loolu am na yu ñuy jàpp ak seeni jabaru baay seen baay dem takki soxna indi ci kër gi yow nga dem sëy ak kooku inna lillahi wa inna ilayhi loolu ñaata yoon ngeen ko fi dégg du jeex ci biir dëkk bi Yuusuf moom sunu borom subhaanahu wa taala musal na ko ci loolu mbokk yi ci yàlla saar bi di suratu Yuusuf sunu borom subhanahu wa taala wàcce na ko ci yonent bi alayhi salaatu salaam pour xamal ko ne ko bépp métit bépp balaa yàlla tabaraka wa taala mën na kaa dindi ci nit te mbégte lay mujj nga koy nettali ndax loolu lan la yàlla jëlee na Yuusuf ci teen jële ko ci njaam génne ko ci kaso muccal ko ci pexe jigéen ñi waaye loolu yëpp kañ la ko Yusuf am keroog ba Yusuf mu ñëwee ci lor yiñ ko lor ci yoonu yàlla tabaraka wa taala looloo tax ndeysaan yàlla di wax yonente bi alayhi salaatu salaam fasbir kama sabara ulul azmi wasbir wa ma sabruka illa billah wala tahzan alayhim wala taku fi diiqim mimma yamkurun loolu tax yonent yàlla muhammad alayhi salaatu salaam pour mission am jag pour mu baax yàlla daa dajale yonent yëpp ne ko ulaayika allazina hadallah ñii laa baaxal ñi ma baaxal a ngi nii soo bëggee baax jaaral yoonu ñii kenn ci borom xam-xam bi ku tudd Cheikh Ouseymin mu ne ku dégg aaya bi dëgg dëgg dëgg dëgg yàlla waxu ko ci aaya bi waxu ko fa bi haulaay iqtadi da ko ne fa bi hudaahum iqtadi déedéet loolu ndax fii erreur yi garaaw la ñuy def Sénégal taalibe bu fi topp sëriñ sëriñ bi nga topp wala sëriñ bi li muy wax nga topp ah sëriñ bi nga topp yàlla waxul nañ topp yonent yi dana nañ topp li yonent yi indi loolu wax yonent yàlla Muhammad fa bi hudaahum la ko wax waxu ko fa bi haulaay iqtadi Moussa ngi nii toppal Moussa toppal mu Ibrahima to déedéet da ko ne fa bi hudaahum ñoom la leen baaxal toppal loolu gis nga nit lu ko baaxal soo ko toppee baax li baaxal waa ji soo toppee li tow li baaxal waa ji nga baax waaye boo toppee waa ji te waa ji baaxul foo jëm te waa ji nga topp mën na baax mën na bon mën na wax dëgg mën na fen mën na nekk dóor ko tumaatu kon soo ko toppee ci lan la lay dugal waaye bu dee waa ji ku baax la nga topp mbaax gim daa baaxoon day julli ngay julli comme moom day woor ngay woor day joxe azaka ngay joxe azaka dafay aji màkk ngay aji màkk day def lu baax ngay def lu baax lool di ko jéem a toppandoo da ngay baax gis nga yonent yàlla Muhammad ba mu toppee la gaa yi indi woon dafa jub yàlla ne ñu ñun ñii laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ku topp yonent bi alayhi salaatu salaam moom tamit ci li mu indi woon rek da ngay baax alxuraan baa ngi nii 114 saar la dara wàññeeku ci ku ko topp léegi nga dabi leen ñoom léegi nga dabi saxaaba yi léegi nga dabi yonent bi alayhi salaatu salaam doo mel ni moom nag waaye di nga baax tashabbahu in lam takunu mislahum inna tashabbuha bil karimi falaaxun jéem a toppandoo ku baax day tax nga baax waa ji dafa sol yëre yu weex tal kaalawu kaala bu weex lépp weex tout mu da mu dugg ci jàkka ji fekk imaam daa tardé lan la gars yi di wax kooku salaamaaleykum sëriñ bi kaay jiite fekk waa ji mokkalul faatiha xale bu góor bi jàng kaamil bi ba mu fees riwaaya yëpp mu mokkal ko su jàngee alxuraan ñëpp daanu mu sol jiin sol bodi dóor kap dugg ci jàkk ji imaam ñëwul est-ce que dañ ko jiital kenn du ko jiital lu tax ñu jiital kee jiitaluñ kii kan moo may tontu melokaan bi moo tax ñii ñu bëgg nga toppandoo ku baax soo toppandoo ku baax da ngay baax waaye boo toppandoo bandi bandi ngay nekk parce que yaa leen toppandoo bal sax boo nekkee ak ay bandi tey jii kenn ci ñun fii boo demoon fekk grand place bu ñuy toxi yàmbaa nga toog police fekk la fa di nga dem wala doo dem ah da ngay dem bu tax ngay tax ngay dem dañ naan ci nga bokk voilà kon mbir yi dafa leer nañ ci sunu àdduna foog ñu xam lan la ñuy def foog ñu xam lan la ñuy topp foog ñu xam ñan la ñuy topp ki ñu topp aussi foog ñu xam lan lañ koy toppee man lan moo tax ma la topp la lan tey jii tey jii sunu kilifa yëpp lu tax ñu topp leen dañoo bëgg baax voilà loolu donc moo tax bëgg baax moo tax nit ki dem ne man de damay ñëw ci sëriñ bi parce que sëriñ bi ku baax la damay dem ci imaam imaam ku baax la damay dem ci oustaz bi ku baax la damay dem ci kilifa gee nangam ku baax la waaye ndax moom léegi boo demee ba mu wax la defal lu baax la da ngaa war a dem tëdd di nelaw ndax moom daa tëdd di nelaw déedéet tukulóor yi nee na ñaamanam ñaamo taako ɗanono kam ɗano taako sa nokki langare a fawi e hujjuɗo tinata ko ina wuli kono a tinata ina safi voilà loolu leer na de jaamu yàlla daal xam nga nu mel tànk ak tànk mbagg ak mbagg olof yi nee nañ booy topp koy topp bu teg bu teggee tànk da ngay yow laay topp ba pare toog waaw man kay yow laay topp maa ngi nii maa ngi waaw te waa jaa ngi dem yow nga toog toppoo ko kooy topp bu teggee tànk da ngay teg loolu la saxaaba yi waxoon yonente alayhi salaatu wasalaam wallahi jiitul ñu topp sa ginnaaw tànk boo jéggi ñu teg tànk ku la joxoñ ñu dagg loxo bi loolu Saad Muaz waxoon yonent bi yéen yàlla ne leen dem leen ngeen xeex yi yonent yàlla Muhammad ndeysaan xam na ne waa Màkka dinañ xeex parce que Màkka amul naafiq Màkka keng lañ def dañoo bàyyi ay jabar bàyyi ay kër bàyyi ay magasin bàyyi ay tool topp yonent yàlla Muhammad loolu moo tax ñu gàddaay mooy waa muhaajiruun léegi nag yàlla ne leen xeexi leen yonent yàlla Muhammad diisoowul ak waa Màkka xam na leen waa Médine ne leen waa lu ngeen wax nag yonent di wax di wax ba wax ji jeex Saad Muaz jóg taxaw ne ko yaa rasulallah fi amul diisoo bi la ñëpp weddee ñoo la gëmoon ñun bi la ñëpp nee du fii ñoo ubbi sunuy buñ kër fat leen ñii ñooy waa muhaajirun démb lañ ñëw ñu fat leen comme yow xam nga ne ñun lañ meloon démb ak barki démb duñ ci changé virgule jiitul ñu topp la tànk boo yëkkati ñun ñu teg sunu tànk ku la song ñu rey ko allahu yonent bi daal di kontaan daal di muuñ ba sell yi génn ndeysaan sallallahu alayhi wa sallam yeneen bi bëñ yi dafa weexoon tal ñaar yi sell yi da doon melax mel ne or buy génn guddi ci baatu jigéen yàlla dakaa tusngal ba bu la xoolee foog nga def nii yonent yàlla Muhammad jóge na Màkka ñëw Médine benn arab dégg na Muhammad ñëw na Màkk Médine mu ne xaaral ma dem xooli ko nee na bu mu ñëwee fekk mbooloo mi toog mu ne asalaamualeykum ñëpp siggi mu ne lamastabantul wajha araftu anna al wajha laysa bi wajhi kazzab mu ne bi mu siggee xool ma rek lumière bi ne saf sama kanam moo xam ne kanam gi borom du fenkat kii lu mu wax dëgg la yàllaa ko yónni noonu la meloon sallallahu alayhi wa sallam borom xam-xam yi nee nañ yonent yàlla Muhammad moo gën a rafet Yuusuf ñu ne lan moo tax kon Yuusuf ñu mun koo xool Yuusuf alxuraan nettali rafetaayam ah ñu ne jant ak weer la jant ak weer weer mun nañ kaa xool waaye jant ah Muhammad kenn mënu ko woon xool lu tax mënoo ko woon xool soo nee nii foog nga def nii moo tax kenn mënu ko woon xool ndax yàlla moo ko wekk yàlla moo ko aar kenn mënu koo xool rek ñaari ne nii mukk ci àdduna soo nee nii rek damay xool suuf waaw loolu la ko yàlla defal sallallahu alayhi wa sallam njoolul ba ci kaw sewul ruuj gàttul mbux riwul pataawul dafa yem digg doomu léppam yàlla da kaa defar mu rafet sallallahu alayhi wa sallam tu am na benn téere bu tudd muhammadun ka annaka taraahu soo jàngee téere bay jeex dama mel yaa ngi gis yonent bi lépp moo mat tout moo mat ci moom amul lu manqué lépp a rafet lépp a taaru parce que yàlla moo ko préparé jalla jalaaluhu wa azza kamaal doo ko yónni ci jaami yàlla yi kon sunu borom moo koy nettali xat-xat yi Yuusuf jaar ak fi mu mujjee pour mu xam ne innama al usri yusran wala Yuusuf fi mu jaar yëpp fan la ko yàlla mujjee indi mu daal di nekk buuru Égypte wa jaalahu azizan fi ard misra wa mallakahu llahu xazainaha fa kaana assayid al mutaa wal aziz al mukarram yusuf mujj naa nekk buuru Égypte yàlla moom loo ko magasin yi mooy joxe lekk mooy joxe naan mooy fal mooy folli yàlla def ko mu nekk sang boo xam ne bu ñu topp la moom yusuf yàlla def ko buur boo xam ne yàlla def koo teral fan la jóge fan la yusuf bàyyee ko xoolal étranger dëkk beneen dëkk la ñëw waaye yàlla may ko teraanga ci dëkk bii mu jiite ko loolu laa doon wax sànq loolu tax yàlla tabaraka wa taala royloo yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam wax ko wax ko jafe-jafe yi indil ko aaya yi ne ko muñal comme yonent yi ni ñu muñe woon yonent yëpp muña ndax gis ngeen yonent bu muñul benn yonent dong moo muñul woon yàlla yónni ko ci dëkk waa dëkk ba nekk ay yéeféer mu gedd mu am natt te yàlla subhaanaka wa taala daal di baaxalaat waa dëkk ba daal di koy delloowaat foofu muy kan yunus ibnu matta ala wazni hatta yunus alayhi salaam moom kenn la woon amul beneen yonent yonent yëpp dañoo muñ a muñ a muñ a muñ a muñ ba buñ doon wax ne seen boolu muñu kaay daa jeex xoolal nuu ñaata at la muñ xoolal Moussa Moussa gars yi nee nañ sax dem nañ ba ne dafa xuuxaan xam ngeen xuuxaan mooy tubéy ji ci biir ñu ne tubéy ji ci biir dafa rëy ba la nekk ci biir tubéy ji tubéy ji àttanatu ko ndeysaan mu naan leen yéen yéen samay ni lu tax ngeen may lor ci suratul suratu safi wala du loolu ah wa is qaala muusa li qawmihi ya qawmi lima tuuzuuna nii wa qad taalamuuna anni rasulullahi ilaykum falamma zaagu azaaga allahu qulubahum wallahu la yahdi alqawma alfasiqin waay waay waay yéen samay ni lu tax ngeen may lor te leer na leen ne yéen ñi di ma saaga ak di ma xas xam ngeen ne man yonant laa yàlla ma yónni lu tax ngeen may lor ngeen naan damaa xuuxaan waaye yàlla moo leen ci defal bu neex yàlla moo ko bàyyi parce que xam nga lu tax nit ñi dañoo yor ay aada yu bon aada yi boo ko deful rek ñu dëkkal la fu bon banu Israël dañ doon daje ci benn dex di sangandoo góor ak jigéen ñëpp def yaramu neen moom loolu bugg ko mu xool loolu civilisé wul même bu dee ay góori kese sax ñëpp futtee ku def yaramu neen wax dëgg yàlla rafetul ay góori kese ah ñu futtee ku def yaramu neen yàlla ni mbindee yi nit ñi yemuñ am na ñoo xam ne bëgguñu ko gis seeni awra léegi nag ñoom bu ñuy sangu noonu la ñuy def moom nag buy sangu da leen di sori dem ba gisatuñ ko mu simmeeku teg ay yéreem ci xeer dugg sangu gars yi nag xam ngeen lu tax mu ñuy daw mooy fii rek boo fi bañee yenn nii rek la xam ngeen lu tax mu yéen commence créer kii wax xamu ci dara gis na bañ nga dara rek mu dem taxe la dara ak bëri fii ak bëri ñoom dañ leen di tooñ lu tax seen buntu kër gi di tëju wóoruñu ñii fekk ndeysaan dañuy bañ rek ay lambar lambar yeeg va et vient yàllaa baani dëgg gàll la wut di taako war ko takkee mag dañoo bañ dañoo bañ dañoo bañ lambar lambar yi rek loolu moo tax ñuy tëj seen buntu kër waaye fii booy fi tëj sa buntu kër lu ñuy wax ñooy dëmm lañ wala dañuy tëju ñii wóoruñ ndax boobu kese la ah waaw ndax boobu kese la bañ fi dara rek soo fi bañee dara rek ñu tak ñu takkal la dara munoo fexe ba rëcc ci loolu waaw su suñu koñ damay ñëwee xale yi ñu ne dama leen di tere dama leen di tere doxi guddi guddee wala toog ci buntu kër gi waxtaan jëmale 4 heures du matin xam nga sama waa kër nan lañ leen tuddee rëbës waa rëbës. su ma ñëwee fekk la ñu toog ma ne xale yàlla jóg leen jóg leen tëddi da ngeen di jàngi suba ñu ne waa rëbës bu nga ne booy dañ ma dañu ko wax ba mu dee yow waa rëbës yéen a ngi tëddi ma ne waaw ñu ngi tëddi lan la ñuy wàññi lan la ñuy wàññi da ngay dem nga tëdd nga bàyyi sa njaboot ci mbedd mi ah tukulóor yi nee nañ xirti leli yéy ni jam ah wala fi nee nañ reer tëdd mooy wàllu reer doxi dégg leen wax boobu reer tëdd mooy wallu ji reer reer doxi chaque jour ku ñuy wallu guddi dafa doxi woon wala dafa tëddoon kan moo koy wallu ka tëddoon waaw mu ngoog saa yoo reeree tëdd rek sa ja sa sa kuddu ràcc na jàmm yàlla subhanahu wa taala dafa muñ loo yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko yonent fi jaaroon nag dañoo muñoon yow tamit foog nga muñ mbir mi metti na trop waaye nag da ngay muñ comme yonent yi mag yi ni ñu muñee woon waaye yemul ci loolu mu ne ko fas bir muñal wa ma sabruka illa billah bu la lenn muñ loolu dul yàlla wala tahzan alayhim société bi dëkk bi nit ñuy def nii bu mu la métti waaw bu mu la métti sooy woote ci yoon yàlla ngay woote nit ñi nañ ñëw ci yàlla nga gis ay caaxaankat loolu bu mu la métti ndax loolu moom mooy lu nature loolu mooy sunanullah fil ard woote bi ñëpp duñ ñëw bu leen yaakaar ne di ngeen toog ba géejawaay gi ñëpp nekk ay ahlu sunna nag ñëpp bàyyi bokkaale ñëpp di dund diine loolu lañ bëgg de waaye mënut a nekk nag waaw da ngeen yaakaar ne da ngeen nekk jàkka ji waa stade bi ñëw ne fekk seen fii ñëpp bàyyi dem stade mook ñee ñooy gën a fees la de ñooy gën a xumb la ñooy gën a neexle ndax loolu mooy sunanullah fil ard muñal bu la dara muñ loo dul yàlla bul am naqar ci ñii li ñuy def wala tahzan alayhim wala takun fi diqin mimma yamkurun mu ne wa hakaza ayuha al ahbab jaat qissatu yusuf as-saddiq tasliya li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam amma yalqaahu lii moo tax saar bi ñëw ndeysaan di dalal di dalal yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci métit yeeg coono yeeg jaar-jaar yeeg naqari ndax bu fekkee yow da nga am ay jaar-jaar da nga am ay métit da nga am ay coono da nga am ay naqar yëgal ne am na sa moroom yu fi jaaroon nekk ay yonent fii nga toll tey ñoom tolloon nañ foofu wa jaat tahmilul bishr wal uns war raaxa wa tumaaniin saar bi ñëw ëmb mbégte wal uns ëmb wéttaliku war raaxa ëmb noflaayi wa tumaaniina ëmb dal loolu la saar yusuf suuratu yusuf ëmb mbégte la njëkk a indi mbégte yonent yàlla yusuf yàlla bégal na ko ci saar bi wala yàlla bégalu ko ci ah kay yàlla bégal na ko ci keroog ba mu dajalee frère am yi ñu naan ko baal nu dootuñu ko defati ah ñu ngi nii tey xiif nañ amuñu lu ñu lekk amuñu lu ñu naan sunuy saaka ngi nii dara nekku ci mu ne leen xam nga ndax xam ngeen li ngeen def ci Yuusuf ak frère am ñu ne ko ndax yow yaay Yuusuf mu ne waa man la yàlla baaxal nanu yàlla defal nanu xéewal ndax lan ndax képp ku ragal yàlla nga nekk ci lu baax yàlla dina la defal xéewal ñu daal di torox mu ne leen dem leen jël leen sama yére bi ngeen sànni ngeen yóbbu ko ci sama pap waaye jël leen waa village bi ngeen indi leen fii keroog ba waa village bi duggee ci dëkk ba mu yëkkati papaam ak tantaam teg ci kaw fëtëy nguur gi papa jeeg yaay ji ak fukki doom yëpp dañoo sujjóot ci kanamam loolu du mbégte yàlla bégal na ko waaye yàlla yemul ci bégal ko yàlla indil na ko wéttal mbokkam yi ko doon xeex démb tey ñoo toxu waa dëkk ba yëpp toxu famille bi yëpp toxu ñëw ànd ak moom dëkk ci biir pale bi ndaw si nga xam ne moo ko doon sàkku màgget yàlla defaat ko xale bu jigéen mu takkaat ko bi mu ko muñee ci lu araam yàlla may ko ko ci mu dagan ko ndaw sa nu mu tudd Zuleyxa war raaxa yàlla may na ko noflaay yi wa tumaanina dal liman saara ala darbil ambiya ki wallahi gis nga lii nekkul yonent yi kese de képp ku jaar ci yoonu yonent yi li li yonent yi amoon nga am ko donte na doo nekk yonent ku la joxoñ yàlla dagg loxo bi ku la mettital yàlla duma ko ku la xeex yàlla jële ko ci àdduna bi loolu yàlla moo ko wax te du fi jógee xool leen àdduna bi ba mu tàmbalee rek ñi doon xeex nit ñu baax ñi fuñ mujje ñëpp al ko même bu dee sa baay moo lay xeex ci biir kër gi yàlla dina ko dina ko caw ay yar sikk nekku ci même bu dee sa yaay même bu dee sa jabar même bu dee say doom yàlla dina leen caw képp ku xeex ku ànd ak yàlla yàlla dina la caw même bu dee nguur yàlla dina caw nguur googu loolu bu yóbba ñun ñëpp ñu xam ko ku ànd ak yàlla yàlla moo la yaar léeg-léeg kenn ci ñun ndax ngëm gu na sax mu ne naka la nit di àndeek yàlla ñu koy rey yaa ngi dégg loolu wala nit naka lay àndeek yàlla ñu koy tëj kaso wala nit naka lay àndeek yàlla ñu koy mënote fii dugal ko ci oto tëj ko fii def ah kay yàlla day nattuwaa ji ndax lim ne dafa ànd ak yàlla dëgg la wala dëgg alif laam miim ahasiba nnaas an yutraku an yaqulu amanna wa hum walaqad fatanna alladina min qablihim fala yalamanna allahu alladina sadaqu wala yalamanna allahu yàlla nee na da ngeen di wax gëm ngeen yàlla rek ma bàyyi leen alif laam miim lay indi ahasiba nnaas ndax nit ñi dañoo yaakaar an yaqulu amanna gëm nañ rek ma bàyyi leen noonu waa xëy ñi kay jullit lañ déedéet foog ma teste leen ma xool ndax ngëm gi ñuy woote dëgg la léeg-léeg nga ne da ngaa gëm yàlla yàlla di la testé nga toog sa wet nga toog ci biir jàkka ji am ko toog sa wet di jóg rek kalpeem wadd nooy def bu dee gëm nga yàlla nooy def waaw bu dee amoo loo ndogoo nag nga ne nii kalpe bi léegi waa ji génn na jàkka ji nga ne nii nga gis billet dix mille yi tegu waaw nga génn dugg ci toilette yi daal di rocc xaalis bi yëpp daal di fay sànni kalfe bi ñëwaat toog jàpp sa njàmbur waa ji dem dix minutes ñëwaat eh sama kalfe nekkul fi kay ah gisuñu ko de ndeysaan ba suba ñu for ko ñëw bu ñëwee ñu jox ko ko léegi yow nga ne gëm nga yàlla noonu la ñuy gëmee yàlla nga fol portable jàmbur mu la yar na ne portable portable mu ngi mu ngi kii soo ko tegee deux minutes borom feeñ nga fay ko yemoo ci fay ko dindi pis bi sànni nga ne gëm nga yàlla alif lam mim ahasiba nnaas an yakunu an yaqulu amanna wahum yàlla da lay teg coono da ngay génn sa kër benn benn kilifa nee na damaa xëy sama kër génn aw ma lu ma joxe añ ma taxaw ci arekaar bi ma gis benn billet 1000 francs di naaw di naaw bur bur bur ñëw ba sama wet taxaw ma ne eh waay yàlla mu ngi may testé waay nee na ma romb 1000 francs bi jël oto dem sama yoon wala loolu rek yow ne loolu yomb na amoo loo ndekkee nga gis 1000 francs buy naaw bur bur ñëw ba sama wet taxaw nga yàlla da lay testé saa yu ne gëm nga yàlla yàlla testé la wallahi azim xool ndax li nga wax dëgg la wala du dëgg loolu tax yenn saa yi doomu aadama day xam ne lii test la nga tëb ko waaye ñu lay testé jàpp la wala fi nee nañ ku ñuy ku ñuy diñ dëmm ñu fekk ko muy soccoo yeeli liir lu ñuy wax yow koy dëmm nga kii dëmm bu mag la lañ lay wax ah kenn ci ñun du ne gëm naa yàlla ba yàlla bàyyi la noonu non jamais foog yàlla xool li nga wax dëgg la wala du dëgg nga ne gëm nga yàlla nga tëdd ba guddi benn xale bu jigéen ñëw fëgg sa néeg nga ni kookan la mu ne la man la nga ubbi bu dee gëm nga yàlla day dugg bu dee gëm nga yàlla day toog ci lal bi bu dee gëm nga yàlla da ngay da ngay wàcc rido bi bu dee gëm nga yàlla da ngay xëcc bunt bi tëj yéen ñaar ci biir loolu gëm yàlla la alif lam mim ahasiba nnaas an yutraku an yaqulu amanna wa hum laa yuftanuun yàlla nee na wa laqad fatanna allazina min qablihim ña leen jiitu woon teg naa leen ay coono ay métit pour ma xam gëm nañ wala gëmuñ xool Ibrahima ni mu toll yàlla ne ko Ibrahima waaw gëm nga ma waaw yàlla ne ko dama nga jong ci paa paa mu dem jong wa isibtala Ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna boo ko yàlla ne demal nga def lii baat yi ay baat ñii nee nañ da ko ne jongul ñii da ko ne watal say poxtaan watal sa naq watal watal defal lii daggal say wee wàññil sa naanu yi defaral sa bopp bi fa atammahunna mu matal ko yàlla xam ne kii gëm na mu ne ko inni jaayiluka linnaasi imaaman bi ko yàlla ne inni jaayiluka linnaasi imaaman qaala wa man ah yàlla ak sama njaboot yàlla ne ko laa yanaalu ahdiya zalimin Ibrahima dëgg-dëgg nag yow la waaye nag say njaboot moom bu ñu ma tooñee duñ ci bokk ndax man sama contrat tooñkat du ci bokk ku ma tooñ ma caw la donte ne yonent la jur laa yanaalu ahdiya zalimin wa is jaalna albayta masabatan linnaasi wamna wattaxasu min maqaami ibrahima musalla wa hinna ila ibrahima wa ismaila wa ishaq lu ci tegu ndeysaan bi aaya bi continuer ba mu yegg ci yàlla dama bëgg fee lan la ko yàlla waxoon laa yanaalu ahdiya zalimin sama contrat tooñkat du ko am xam nga wax na yàlla ibrahima proposé na yàlla njabootam yàlla ne ko déedéet fii nag mu ne yàlla joxal waa màkka lekk ak naa ak naan man amana minum billaahi wal yawmil axir yàlla ne ko wa man kafara yàlla waa dëkk bi na nga leen jox ñi gëm yàlla na nga leen jox lekk ak naan ak lépp bu dara manqué yàlla mu ne ko yéeféer yi sax dañuy lekk da ko weddi fee weddi ko fii fii dox yàlla weddi ko weddi bu njëkk ba dafa bëgg a jël njabootam yëpp sécuriser leen bu leen yàlla laal yàlla ne ko déedéet sa njaboot ku ma ci weddi ma caw la fii mu bëgg a ñëw weddi sécuriser ñi gëm yàlla kese kese ñoo war a dund ci àdduna yàlla ne ko yéeféer yi ci àddina bi lañ bokk loolu loolu lan ngeen ci jàng maandu te yàlla yàlla ku xam nga lu mu xam ku ko jaamu la xam xamul ku ko jur ku ko jur xamul loolu moom de Ibrahima ay baayam Sénégal moom moom ku la jur rek yow jógal yoon bi xanaa xamoo kii nu mu sant nu mu sant ñu ne saw la sant saar la sant caam la sant jógaleen yoon bi rek lu tax lu tax ñuy jóg yoon bi ndeysaan benn buur ci buuru jullit yi dafa jaar ci mbedd ñëpp daw benn xale na këcc taxaw mu ne ko yow eh, lu tax dawoo yow mu ne ko lan laa def bay daw yoon bi dafa xat ko déedéet mu ne waaye yow yeddu yaatu dafa yaatu mu ne wala ta jaar mu ne mu ne moo tax mu ne xale bi bi mu màggee mu xamoon ne kii dara lay nekk sànq lu ma leen doon wax muy nit bu naree nekk dara li ki xale nga koy xam yow lu tax ñëpp di daw dawoo mu ne ko ah yoon bi xatul man defuma dara lan laay daw te yow gumba wooy sil ma xawoo xanaa dama fekk ma na nga may dëggati buur bi ne waaw yi moom garaaw na li buur bi ndeysaan ñu koy ñu koy fal di ko fal ndomba tànk dëkk yi di yónnee ay délégation pour ñu ñëw war a ndokkeel buur bi dëkk yi ku nekk dugg ak sa délégation xale ba xale ba daal di ñëwaat daal ne assalaamu aleykum buur bi ne eh onon ne ala ala ma ha- ka- ala kaalo wasu wanaa ngel ci ko yéen wuura man ala mawdo yéen seen dëkk amul mag koo xam ne moo war a nekk seen porte parole dul xale bu ndaw bi benn waaye ne ko bu waxee tey nga dee mu ne ko buur mu ne ko ah mu ne ko mbir mi bu doon ay at la doo fi toog ndax xeer bi am na ku la mag wax na ko dëgg la wax ko dëgg kon mbir mi du ay at ndax bu doon ay at kese la ñuy xool fii nga toog doo fi toog buur bi ne ko lu tax mu ne ko dëkk bi am na ku la fi mag kon mbir mi xel la xam-xam la ñaw la waaye du ay at buur bi ne ko waxal kii nag mbir mbaa ngoog waaw mbir mi moom mbirum yàlla du mbirum ay at du mbirum ay sant du mbirum ay dëkk bokk na ci lu ñu sonal ñun waa Sénégal ay sant waaw yenn saa nga dégg ñu ne ku sant saar du war mbaam balaa saa mu war naas loolu man dégg naa ko fi wala yéen déggu leen ko waaw kon mbokk yi ci yàlla doomi ndey yi saar bi di saaru Yusuf dafa ñëw jaar ci histoire yonent yi alayhimu salaam di leen yëgal ne fala budda min al faraj baada diiq ginnaaw xat-xat nit saa yu amee xat-xat yàlla dina indi yomb ne wa min al yusri baada al usri yàlla tabaraka wa taala ñoo di la wax yomb yomb bu ne yàlla dina la ci génne ginnaaw coono wa fi suurati da duruus wa ibar saar bii di suuratu yusuf ay leçon ñoo ci nekk duruus yu dul jeex ay njàngat surtout nag ci jeune ci ndaw lu am lu am 30 ans jëm 40 ans yow yaa moom suratu yusuf ki am 30 ans jëm 40 ans yow yaa moom suratu yusuf yow ndaw loolu nga war di jàng suratu yusuf même bu fekkee mënoo lire arabe bi nga lire ko en français version français fekkee mën nga lire français wala nga lire ko anglais wala nga lire ko allemand wala portugais yaa xam làkk bi nga mën a làkk su fekkee yàlla mën na lool a lire dama lay conseiller tout le temps del jël téere bi bi ñu traduire nga koy lire soo mënee jàng arabe nag loolu moo gën ngay lire histoire Yusuf wallahi kon di nga mucc ci pexe àdduna kon di nga xam ne àdduna jarul yàkkamti te di nga xam ne ku muñ muuñ loolu moo ngi ci saar bi di suuratu yusuf nee na duruus wa ibar wa izaat baaliga xaafila ay waar yu mat sëkk yu xóot yooyu ñoo nekk ci suuratu yusuf ay histoire yu yéeme wal amba al gariba ay xabaar yu tumaranke moo nekk ci suuratu yusuf loolu tax borom bi di wax inna fi zalika la zikra liman kaana lahu qalbun aw alqa sama wa huwa shahid inna fi zalika nekk na ci saar bii ci loolu ñu leen di wax la zikra fàttali liman kaana lahu qalb kan la ñuy fàttali ku am xol buy comprendre aw alqa sama wala mu ubbi ay noppam fomp ko ba mu set ubbi ko di dégg wa huwa shahid mu teewal boppam nag yoolu muy déglu loolu muy comprendre ci xolam loolu muy déglu ci noppam mu taataan ko nag pour dund ko su boobaa nag day nekk inna fi zalika la zikra waaye bu dee da ngaa ubbi nopp yi mu jaar nii dem ne suratu yusuf daal benn yonent la woon boo xam ne nangam ak nangam mu daat dem du la amal njëriñ yow jullit bi nga xam ne da ngaa war a jëriñoo saar bi haza huwa jawwu suura lii mooy climat wu saar bi jawwu suura maanaam saar bi fi mu tàmbalee numéro un ba dernière aaya saar bi ñaata aaya la waxoon naa ko sànq cent cent onze aaya cent onze aaya la la tàmbalee première aaya ba dernière aaya lii lay nettali li mooy jawwu suura wa haadihi ihaatuha wa muruusiha saar bi lii ma lii lay jàngale lii lay orienté lii lay joxoñ lii la bëgg nit ñi daal di dund tubashiru bi qurbin nasr daf lay wax ne ndimbal gaa ngi nii ndimbal gi moo ngi nii soriwut bi qurbin nasr doo bàyyi ba dee ba màgget ba ëllëg alaaxira yàlla di la fay déedéet nim la nee un nim la nee cent onze noonu la la yàlla di fayee bi qurbin nasr ndimbal gaa ngi nii liman tamassaka bi sabri waaye kan la yàlla di may victoire kan kan kan la yàlla di may ndam mais ku muñ même bu dee combat la nga jàkkaarloog mbër bi yéen ñaar ngeen di dóorante ki muñ mooy da mooy jël victoire bi ki muñ ki résister mooy jël victoire loolu tax doomu aadama foog nga résister foog nga muñ suñ borom loolu la wax saar baa ngi nii ku muñ la yàlla di may ndam wa saara ala tariqi l ambiyaai wal mursalin ndax da ngay muñ rek tamit tëdd di nelaw sa kër jaaret da ngay jaar ci yoonu yonent yi ak ñi yàlla yónni yàlla defal la victoire kon ndimbal ndimbal lan mooy sart yi lan mooy sarti ndimbal ne yow di nga am ndam di nga am victoire luy sart yi damay laajte damaa bëgg kenn wax ma li ma fi wax léegi léegi sart yi ñaata la ma xool ndax yéen a ngi dégloom de ah bon ah lan mooy sart yi pour nga am ndam muñ ba njëkk mooy foog nga muñ as sabr ñaareel mooy ittibaayu rusul wal mursalin nga jaar ci yoonu yonent yi yàlla yónni al anbiya wal mursalin ak ñi yàlla yónni waaye wa duaat al muxlisin nga jaar ci yoon wootekat yu sellal yi dafa am wootekat yu sellalul am ñu sellal allahuma ij'alna min al muxlisin al muxlasin wajma'na ma al muxlasin al muxlisin yal nañu yàlla boole ci ñi sellal te loolu rek moo am importance ci àdduna mooy loo nekk nga sellal ko wallaahi lu sellul amul njëriñ diine bu sellul diine ak nekku fa jaamu yàlla yi ñuy def koor julli yi naafile yi saraxe yi lépp lu ñuy def xiyaamul layli yi bu sellul dañuy perte képp ku ñëw julli si xiyaam ndax nit ñi moo nañ nga mbokk yaa ngi jàkka ja naa dem perte nga jàkka ja dafa am xëdd ay ginaar la ñuy xëddee perte nga naa dem jàkka ja ndog dafa am mbërëg bër bées doore la perte nga looy looy am bées doore waaw ndeysaan waaw loolu danaa am bu njëkk ba début daawa boobu ndeysaan xiyaamul layli yi nuróowul ak léegi nii boobu nit ñi muy ñuy xiyaamul layli ndeysaan nit ñi bu ñuy xiyaamee dañuy jooy rek dañuy jooy rek am benn koñ benn xale bu jigéen ndeysaan gaa yi ne ko yow doo ñëw xiyaam benn xaritam ne ko da ngay bàyyi ba jooy yi commencé jooy yi kañ lay commencé fukki fan yu mujj ci weeru koor bu ñu bu ñu bu ñuy naafilaa bu ñuy bu ñuy bu ñuy tëj safa witar dañuy def xunuut nee na bu ñuy xunuut imaam bi di ñaan gars yi dañuy jooy léegi bàyyil ba boobu mu ne ko waaw bu boobu jotee nga wax ma ko xale bu jigéen bi ndeysaan fukki fan yi jot rek mbokk boobu di ñëw ci jàkka ji rek ne ko nañ dem jooy gars yi commencé nañ léegi bu mu ñëwee mu julli mu julli daal di tëdd ci ruq bi gars yaa ngi taxaw moom moom mu ngi tëdd mu ngi tëdd ñu julli julli julli ba def safa witar ba witre bi jot rek bi imaam bi kàbbaree daal di jàng faatiha jàng saar bi rukoo siggi commencé allahumma dina fii man hada rek xaari bi ne ko jooy yi commencé rajo rek mu jóg rek mu jóg rek ne moom ne ko ne jooy yi commencé na rek mu jóg rek i ñu ne ko wax yow xanaa sax di nga taxaw tuuti boog ba ba sa xol bi sax ñaan gi dugg ci waaye yooyu commencé na rek nga jóg hii hii non non loolu nag loolu mooy kooku lu ko fa yóbboon ah yooyu moo ko fa yóbboon lan lan lay am ci lan lay am ci demam googu guddi googu ay jooy kese la ci am loolu nag ab jullit war na ko moytandiku mooy mbir mi amoo ci lu dul lekk mbir mi amoo ci lu dul loolu moom yàlla nañ ci yàlla musal ixwatal iman yéen samay mbokki jullit fa hiya salwa lil qalb saar bi dafay fiixal xol wa balsam lil juruux dafay wéral góom blessure blessure lu mu métti métti buñ la waxee saaru yusuf góom bi daal di sedd ndeysaan waqad jarrat aadaatu alquraanu alkarim bi takraari alqisas fi mawatinin adida alquran bu ngeen jàngee saar yi da ngeen di fekk yàlla di ci nettali ay suura yu bare bare bare bare ay saar yu bare bare bare bare yàlla di ci nettali yonent yi da ngay jàng yàlla fi mu tàmbalee nettali Muusa ci ci alquran ban saar la suratu baqara ci ban saar la ko yàlla mujjee wax ah suratul ala muy sabbih isma rabbikal ala xoolal saar yëpp yàlla nett na ci yonent yàlla Muusa Ibrahim naka noonu kazaalika Baqara la ko yàlla tàmbalee di nettali ay mbiram fan la ko yàlla tëjee al ala moom tamit ah du dëgg loolu nag lan la mooy yàlla tabaaraka wa taala day nettali yonent yëpp ci alquran seen histoire waaye Yusuf nag moom ndax histoire am bëri na ci alquran su Yusuf ñaata yoon la ko yàlla wax ci alquran. ñaari saar jeex na tàkk 114 saar ñaari saar lañ nettali histoire Yusuf waaye bii moom da cee nekk bu complet lépp la yàlla nettali ci histoire am moo tax saar bi am benn particulier boo xam ne nuróowul ak yeneen saar yi moo tax sunu borom subhanahu wa taala fii rek la nettali lépp moo ngoog tënk ko daal di nettali histoire jaar jaaru yonent yàlla Yusuf alayhi salaam mbokki jullit yi mu ne faqat zukirat xalaqaatuha huna mutataabia yàlla dafa nettali épisode yi mu daal di tegantoo tegantu tegant keroog ba mu géntee gént ga nekk xale fa la ko yàlla tàmbalee mu ñëw ne papa gént naa fukki biddéew ak ñaar yu ànd ak jant ak weer di ma yàlla ne ko bul nettali gént gi say mbokk denc ko bu leen ko wax de bis boo leen ko waxee ñu fexeel la fu mujj foofu la ko yàlla tàmbalee fan la ko yàlla tëje mooy keroog ba mu nekkee buur ba histoire bi am papa jeeg yaay jeeg fukki doom yeeg ñaar yëpp këpp ci kanamam mu ne ko papa la ma la nettali woon ba ma nekkee xale gént ga mu ne waaw mu ne ko moo ngi nii yàlla def na ko dëgg waaye xam nga lu mu ko tëjee mu ne ko ku ragal yàlla yàlla may la ndam innahu man yattaqi wa yasbir ku ragal yàlla muñ yàlla du sànk yoolu ku jëf ixwaan yi mbokk yi kon saar baa ngi noonu mu nekk saar boo xam ne bi suñ booreem subhaanahu wa taala ci kàttanam incha allah moom la ñuy jël tàmbale ko suba tey introduction bi lañ doon def muy yusuf faqad zukirat xalaqaatuha huna mutataabia ah walam tatakarrar fi makanin axar kenn du fekk beneen saar kenn du fekk beneen saar ah ka saairil qasas yàlla di fa nettali histoire Yusuf comme ni mu ko nettalee fi amul ci beneen saar wala wala jàngeen ko ci beneen saar ci bii rek histoire Ibrahima da nga fekk ñu tàmbale ko Baqara indi ko Al Imran indi ko Nis Nisaay indi ko Maïda indi ko Araf indi ko indi ko indi ko fu nekk yàlla di ko fa wax waaye histoire Yusuf moom yàlla baamtuwu ko feneen mu nga comme yeneen histoire yonent yi li tay siri ila ijaazil quran loolu nag ndeysaan lan la lay woon mooy alquran téere bu téere bu téere bu doy waar la téere bu yàlla tënk la fil mujmal wal mufassal day boole di tàqale day boole di tàqale alquran a ngi noonu mu ne waa fi xaalatil ijaaz wa fil itnabaat fa subhaana al malik al aliyi al wahaab mu ne qaala al allaama al qurtubi zakara allahu aqasis al anbiya fi l quran wa karraraha bi maana wahid nee na sëriñ bu mag boobu tudd al imaamul qurtubi mu nekk kenn ci tafsirkat yi nga xam ne tafsirul qur'an ñu bëri dañ ciy dellu marja la moom imaamul qurtubi ci tafsirul qur'an comme ni ñeneen yi mbokkam yi waaye moom nee na yàlla nettali na histoire yonent yi ci alquranul karim yàlla répété waat ko waaw da ngay fekk yàlla fu mu wax histoire benn yonent su saar boobu jeexee beneen saar ñëw yàlla répété waat ko ci ay étapes yu wuute yu bokkut ak ay baat yoo xamante ne dafa toppante ala darajatil balaaxa wal bayaan ci langue boo xam ne langage boo xam ne balaaxa dafa mat jot sëkk waaye leer nañ nañ alquran mooy téere boo xam ne su fekkoonte ne sax du waxu yàlla waxu yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam la kon yonent yàlla muhammad jar naa fan yenn saa yi nga dégg ñu ne alquran waxu yonent bi la wala am na benn professeur bu gaañu woon temps yële doon ko wax université naan wax alxuraan du waxu yàlla ay littéraire la ay xawma lan ay léebu grec yi la moom la yonent yàlla muhammad daal dajal même bu dee loolu sax kon yonent yàlla muhammad ponkal la ku jàngul mën a dajale ay léebu grec def ko nii depuis septième siècle ba léegi kenn mënu ci dara mu ne kenn kenn mënulu ko dara kon kay kooku ngand nga mais ay dof lañ kii waxu yàlla la alxuraan waxu yàlla la tabaraka wa taala wax la yàlla wax jox ko jibril na ko indil yonent yàlla muhammad ginnaaw ba ko yàlla defee ci lawhul mahfuz ngeen koy jàng ah yàlla di ko wàcce tuuti par tuuti di ko jox jibril téere bi dafa doy waar de téere bi ku ko jàpp rek nekk ponkal téere bi ko yàlla joxee malaka malaaka ba tudd jibril mu gën a foor malaaka yépp wala bi ko yàlla wàccee màkk mu nekk ngën gi dëkk bi ko yàlla wàccee ci laylatul qadr mu nekk bi ko yàlla wàccee ci xeetu muhammad ñu nekk bi ko yàlla wàccee ci bisu àjjuma mu nekk gis nga de ngën gi ngën gi ngën gi te lépp du lenn de téere bi kese la téere bee laal ñooñu rek soo ko mokkalee léegi sax nga nekk ngën gi Sénégal dem na dem nañ coupe du dem ngeen coupe du monde football zéro coupe d'Afrique zéro coupe du monde danse zéro coupe du monde karaté zéro coupe du monde daw zéro coupe du monde handball zéro coupe du monde kënfu zéro benn coupe du monde ngeen musaa mooy coupe du monde alxuraan wala benn coupe du monde la Sénégal mos a jël mooy alquranul karim fii noonu la leen yàlla mayee ndam moo taxoon waa bu ngeen ci jàppoon dem. waaye nag ndeysaan boobu sax kenn yëgu ko. barke démb concours bi amoon fii sax nit ñi doo dégg rajo yi di ci wax ak journaux yi parce que bëgguñu alquran am ndam lii rek ngeen di jàpp ngeen am ndam. football yi stade yi coupe du monde yi nii nii soirée yi zéro rek ngeen di am ndax ñeneen ñee leen ko dàq xam ngeen ne moo si yéen balaa ngeen di dóor Italie. balaa ngeen di dóor balaa ngeen di dóor Côte d'Ivoire gii rek ak ak ak Cameroun ak Tunisie ak Égypte ay du gaaw de bu fekkee ñii laa gis ñii ñi nga xam ne ku leen laal ñu daanu ñii nuróowuñu ak Messi de nuróowuñu ak Neymar ah ñii fekkee ñii ngeen yaakaar ñu leen fi ko yéen seen kuba gi nii benn coupe ngeen musa am coupe du monde mooy alquranul karim moo ngi nii moom la yàlla musa may ngeen am ndam amul feneen ndeysaan wala benn leneen ab ab sénégalais ab xale bu ndaw amul sax soxna dem indi leen coupe du monde Mohamed Murtada Murtaba moom moo leen musa indi loolu fii amu leen ko feneen eh sénégalais la nag yaa ragalal yàlla fële fu ne am nay sénégalais mu sénégalais la waay yaa mu ne wa zakara qissatu yusuf alayhi salaam walam yukarrirha falam yuqaddir muxaalafati ala muaaradati almukarrar ndeysaan nee na saar bi dong la yàlla jël histoire Yuusuf daal di ko ciy nettali amul beneen saar bu ñu ko nettali ba muy opposé saar bi comme fii nii la fee nee la fële nii la déedéet fii rek allahu akbar wala ala muaradati gayrul mukarrar nee na amul lu ko opposé ci ni ko yàlla répété nee na loolu lu muy wane mooy alquran moo mel noonu leer nañ wa sadaqa allah yàlla nee na laqad kaana fi qisasihim ibra li ulil albaab nettali leen histoire yonent yi ndax kéemtaan la ñeel borom xel yi waaw kon saar baa ngi noonu fii la tafsir bi yem tey incha allah suba ñu daal di dugg ci boppu saar bi bu soobee sunu borom subhaanahu wa taala assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu su fekkee am nañu ay question incha allah
تعلموا القرآن وعلموا